dafa amoon genn góor gu màggat gu amoon jenn doom ju tollu woon ci waxambaane la biroon waaye xaralawul yeewul dara ci mbiru àddina yaakaaroon na ne lépp lu ñu ko digal rekk lu baax la xàmmewul lu war ak lu warul benn bés jegaan góor ga ngi toogoon ci péncum dëkk bi doom ji mbañik romb ko jiital am mbaam bàyyeekoo tool ya góor gi xool ko lu yàgg ne ko sama doom xam nga luy àddina Manick daldi ne cell baay ba dellu ne ko xam nga lan mooy àddina waxambaane ma xool ci suuf ba mu yàgg mu xool baay bi ni ko baay lan mooy àddina jegaan daldi ko xoolaat lu yàgg yëngal boppam muñ ne bëreet ni ko saa doom jógal wa mat mbaam mi nu dem ma won la luy àddina doom ji jóg ànd ak baay bi ñuy dem ñuy dox di dox ba yegg ci beneen dëkk ña leen njëkk seen ca dëkk ba dañu teg seen loxo ci seen gémmiñ genn googu màgget ne leen mu yéen xale bi warul mbaam mi mag mi warul mbaam mi ku mësa gis lii waay nit di dox te yore mbaam mu dara fenkul wax jooju tàbbindoo ci noppu baay beeg bu doom ji ñu xoolante lu yàgg baay bi ni doom ji ma kott boog nga dox ñuy dem di dem di dem ba yegg ci beneen dëkk baay baa ngi ci kaw mbaam mi doom ji di dox naka lañu dugg ci biir dëkk bi ñu dajeeg ay waxambaane yu takku yu jëmoon tool kenn ci ñoom xam ni rekk moo ci gënoon a sàmba booy ni leen billaay góor gi yaa soxor te bëgg nguur mënuloo wàcc xale bi rekk mu toog sa wet ngeen bokk mbaam mi nga koy xool muy dox ci mbóoya mi meneen moroomam teg ci ne ah am na mag ñoo xam ni keñ mbëggum daraja fa mu leen yem wax jooju itam tàbbindoo ci noppu baay beeg doom ji ñu xoolanteeti lu yàgg-yàgg baay bi ni doom ji yéegal boog fii ci kanam ñuy dem di dem di dem ba yegg ci beneen dëkk baay beeg doom ji yépp ñu ngi ci kaw mbaam mi naka lañu dugg ci biir dëkk bi nu dajeeg ay jànk yu doon rooti kenn ci jànk yi xool leen lu yàgg ni ñii ñoo bëgg lu ñu bokk menn mbaam ñaari nit keneen ku ko gën a pànk ni cey góor gi moo nay mënoo wàcc mbaam mi rekk te jëli meneen keneen ku yaru ndeysaan teg ci ne bu ko amul nag janq bu pànk bi ba biiñ regeju tàccu ne ko kon mu dox te bàyyi mbaam mi meeg xale bi baay beeg doom ji bokk déggandoo ab gisandoo lii baay bi xool doom ji lu yàgg-yàgg ne ma wàcc boog dox bàyyi la nga kott mbaam mi ñuy dem di dem di dem ba agsi ci beneen dëkk doom ji kott baay ji di dox ba ñu duggee ci biir dëkk bi jenn jigéen ju màggat romb daldi daar loxoom ci gémmiñam ne xanaa damay waaru ku mës gis lii ba àddina soso ba tey mag di dox xale di war xale bi day moo gën a ñàkk kersa wax jooju tàbbindoo ci noppu baay beeg bu doom ji ñu xoolante lu yàgg-yàgg baay bi ree doom ji ree baay bi ne doom ji gis nga dégg nga lii mooy àddina àddina jéem baa mba la tudd góor gi wax na dëgg ci àddina ñaar ñoo fi am dangay jéem baa nga ba ku bëgg nag looy def mu neex ñëpp da ngay sonal sa bopp ndax ñëpp bokkuñu yem xalaat